أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ñoo ngi sant yàlla di julli si yonent bi man seen mbokk seen xarit euh, Baye Xaas waaw xaase ñu gën koo xamee ci Baye Xaas ñoo ngi ñoo ngi yëngu ci mbiru ñaan wax dëgg yàlla loolu moom yàgg nañ ci tuuti ndax ñu bari xam nañ ñu mbir mi nii ndax buñ commencé génn ci wàllu waxtaan ci mbiru internet yàggul wax dëgg yàlla mësuñ ko bëgg waaye wax dëgg yàlla nit ñi topp ñu rek naan pourquoi pas doo génn waxtaan ndax xam-xam moom e, yonent bi daf ne xam-xam bu mënti doon li siy njëriñ mooy gannaaw bi nga ko xamee ba pare nga xamle ko te xam-xam dafa nekk loo xam ne géej la des fois nit dina xam dara toog ci noonu noonu noonu rek am na si ñoo xam ne ñoo ngi fu suri te duñ mën a jot loolu amaana buñ ko jotee loolu dina leen amal njëriñ bañ man si jaaree am si jàmm am si ñoo xam ne mën nañ ci jaaree faju loolu moo waral ñuy génn daanaka def nañ waxtaan yu bari ci internet bi eh, ci lu paase bu fekkee ne gars yi ñu ngi ñuy suivre am lu bari loo xam ne xawoon na fi eh, ñu wax si yàlla suturaal ñu mu demee noonu lu demee ni ay combat yi fi paase woon ak woykat boobu ñu jàppoon ma defoon si waxtaan. te ni ma ko waxtaanee woon noonu la yàlla suturaal ñi mu demee noonu dañ ciy sant yàlla rek bu baax. alhamdulilah côté boobu noonu man damay wax ne na ñëpp ñaan rek. waaw alhamdulilah côté accident bi côté yooyu noonu accident yi boo gisee lu tax mu bëri te boo xoolee fan yi si gannaaw dafa tegloo mën naa la wax ñetti fan xaw ñeenti fan xaw ma juróomi fan dafa tegloo chaque jour nga dégg accident chaque jour nga dégg accident chaque jour nga dégg accident. loolu dama naan yàlla soxoreewul noonu waaye dëkk bi moo nekk dëkk boo xam ne jamono jii dafa lëndëm nit ñi xale yi talawatuñ jaamu yàlla te seytaane yu bon yi dañoo dugg si dëkk bi waaw ba tax na nag képp kuy voyage kuy tukki moo xam borom da ngaa yor oto di liggéey ci mbiru oto wala danga ngaa bëgg a jógee fii pour dem si yeneen dëkk yi wala ngay voyage il faut nga jël say matuwaay waaw nga xoolaat yoon bu baax a baax bu fekkee mën nga si ñaan xayrun wala ma joxe ay ñaan yoo xam ne rek bu nit ñi di voyager yi ñu jël ko def ko seen saag yi wala seen poset yi wala ñu ngàndaayoo ko daal ci yoon bi bu ko defee incha allahu taala di nga àgg dem ak jaam ak salaam wala kulli haal maanaam mën naa laa wax ne àdduna bi dafa jaxasoo boo xoolee Sénégal léegi ñuy jéggi tey su ñun suñ mag ñu baax ñi fi nekkoon asraar lañ ñu bàyyil wàllu sunguf ak wàllu reen ak wàllu xob loolu amul mu mënut ndax alxuraan moom yàlla bàyyi fa dara bu dee protection la nga nekk mbër loolu doy na protection wàllu bët ak làmmiñ ak yooyu ak loo xam ne dina la may ndam xayrun mais ñoom dañuy xeeb loolu dañuy jéggi Sénégal dem si dëkk ñeg yi wala dem si yeneen dëkk yi nga xam ne ñoom dañuy laal zulumaaniya maanaam xam-xam bu ñuul te xam-xam ñuul yooyu lu ci gën a bëri maanaam tey boo ko gëstoo ba ci biir sarax yi ñu leen di wax loolu dafa nekk loo xam ne day xaraam ay sarax yu doy waar yoo xam ne tey ñoom bu ko indee Sénégal jëfee ko gaalaaju bon yooyu ñuy jëfee noonu si biir foofu noonu làmbaje ja wala si biir euh, nawetaan mats yi wala leneen ak leneen yooyu après day des rawaan yooyu rab yooyu ak jinne yu bon yooyu après bu fi desee day génn rek dem maanaam des fois loolu mooy waral yaa ngi dégg buñ demee te amuñ jeexital amuñ mu amul ko leen di mën a contrôler boobaa may waral dëkk bi toj xale ndaw yi caa da leen di dugg da ngay gis xale bu ndaw boo xam ne rab da koy dugg ñu dem fu nekk di ko faj du mën a wër affaire yooyu yëpp moo koy indi ak accident yu bëri yooyu noonu nga gis jinne yu bon yooyu des fois dañuy frankulaayu ci kaw tëli yi nekk foofu oto bu ñëwee na a leen mbëkk wala mu nar a seen doom dañuy fël oto bi loolu moo waral nit buy tukki damay joxe ay yoo xam ne nii bu fekkee jàng nañ alxuraan hmm, kuy voyager ti da koy wax lu mel ni inna anzalnahu fii laylatul qadri booy surtout ndakaaru nga war a génn pour dem ci raison yi moo xam Gàmbi ngay dem moo xam Kaolack ngay dem moo xam Mbuur ngay dem moo xam fu mu doon ci biir moo xam Ndar ngay dem moo xam fépp boo mënee jàng international set fois balaa ngay génn Ndakaaru baax na boo mënee jàng dégg nga aaya boobu xul rabbi a'uuzu bika min hamazaati shayaatini waaw ni mooy jinne yooyu noon rab yi bon yeeg shayaatini ndaw yi hamazaati shayaatini wa a'uuzu bika rabbi an yahduruni boo ko mënee jàng dégg sept fois baax na wala nga wax wallahu min waraihim muhit bal huwa alquranul majid fi lawil mahfuz boo ko manee nga bind ko waaw boo ko bindee ñetti yoon wala juróom-ñaari yoon nga def ko sa saak incha allahu taala boo duggee oto sax bu fa saytaane yi nekkee wala jinne yu bon yooyu nekk wala oto bi ndara am dara lu fa xew benn musiba incha allahu taala auto boobu du tàkk yow di nga toog ba sonn mujj gi da ngay jël beneen oto changé ko pour mën a dem alaakulli ñaan yi ñu war a def pour di voyager bëri na mais wallaahu min waraay boobu baax na wala bu fekkee ne nit ki jàngul alxuraan na jël lu mel ni benn ju këriñ ak euh, jinjeer yaa ngi dégg bu ko mënee jël fas ko ci morceau bu weex mu dugal ko ci biir saagam wala biir postam incha allahu taala dina dem fi muy dem ak jàmm. waa ñuy sell rek toujours euh, may dénk ndaw ñi ak mag ñëpp rawatina ndaw ñi ndax yàlla moom yaakaar naa ndaw la gën a soxla sax boo demee ba tubaab bi sax boo demee ba retraité. dégg nga soxlaatu la xanaa sa salaire moo la fay fekk rek mais jamono ji ngeen nekkee ndaw la la yàlla gën a soxlaa mais ñoom dañuy nekk ndaw topp àdduna ba yaa ngi dégg yu mel nii nag bu ne feesee ci dëkk bi moo leen di solu di wax ne rek alaakuleyal xanaa li ma leen di dénk mooy ñuy sell fu ñu toll et puis ñuy am jàpp waxtu julli nañ koy julli alaakuleyal waxtu julli juróom te nañuy sell te bu ñuy dem ci bërëb yi nga xam ne lu mel ni bërëbu làmb fekkee ne dañ fay dem fagaru ay nawetaan ak yooyu comme mënuñ fa ñàkk bañ a dem yooyu yëpp nañ fagaru fagaru mooy booy dem na nga am jàpp ba pare boo yoree say ñaan loo xam rek lu lay mën a aar nga def ko am si ñoo xam ne duñ takk téere mais jàng nañ alxuraan am nañ ay secret yoo xam ne mën nañ ko def mën na leen aar ñu dem ba ñëw ak jaam ak salaam gis nawetaan day jeex sax nga gis gaa yi di jamante di saanante ay xeer bopp yu toj yooyu loolu daanaka sport jor ko waaw sport daal mooy lan mooy nga dem def fair mu jeex ak jaamu salaam nga ñibbi si jaamu salaam ala kulli bu fa leneen amee rek yëgal ne am na leneen lu ci rax waaw te yooyu noonu nag dafa bëri daal li ma koy dégg léegi dafa bëri mais boo xoolaatee nga gëstu ko ba ci biir da ngay waaw ku laal ñun moom dëgg yàlla ñaan moom moo fi teg te julit ñaan mooy ngàndaay jullit laaku laal ñun ku ñu woo ak ku ñu woowul yëpp ñoo ngi def ñaan waaw ñoo ngi def ñaan ci dëkk bi ñoo ngi def ñaan ci Sénégal ñoo ngi def ñaan ci Afrique ñoo ngi def ñaan ci àdduna bi yëpp ndax boo duggee ci gaal di ñaan yàlla gaal gi diig bu gaal gi diigee rek da ngay diigaale loolu moo tax chaque instant ñun duñ bàyyi suñ kurus duñ bàyyi alxuraan duñ bàyyi xam nga toujours di def lu baax waaw chaque instant nit ku ñëw sax am problème sa kër wala foo mënti jógee nga ñëw noo mën di ñëwee noonu lañ lay jàppale nga dem alaa kulli haal léegi nag ñi nga xam ne ñoo seefe dëkk bi lu mel ni président de la république yaa ngi lu mel ni ministre yi fi ne ak maire yi fi ne ñëpp alaakulli àll bu ñu amee lu leen jaaxal wala ñu gis lii comme gis nañ ko sax ñoom bu ñu woowee incha allahu taala ñu taxaw leen ci mbir mi rek mais ñun moom ñoo ngi def suñuy secret ñoo ngi jàng alxuraan ñoo ngi def suñuy xaloo di ñaan yàlla dëkk bi am jaam waaye nag niñ koy defee di ñaan yàlla dëkk bi am jaamu am na si ñeneen ñoo xam ne bëgguñ dëkk bi am jaamu nag alaakulli àll am na kay ba ci football bi li tax Sénégal mënta jël coupe ndax lu tax senegal mënta jël coupe waaw parce que Sénégal tamit parce que Sénégal boo xoolee bu ñu waxantee dëgg te yàlla tax Sénégal euh, euh, coupe d'Afrique bii passé amul benn équipe bu ko man te dafa taxawoon taxawaayu jël coupe waaw xoole ñoom dañ ko pare bu baax mais xoolal bit bi bii bi nu mu duggee sax ngay war a xam ne bii wi du ay bitu kii bitu fajar teel la balaa ñu naan deux minutes bii bu dugg na man mii di waxee yow balaa may toog si télé bi di seetaan sax dégg sama soxna woo na ma ne bii bi dugg na man ko ban bii coupe boobu moom ñëpp xamoon nañ ne Sénégal la ko war a jël mais li tax jëlu ko ay mbir yu sew la xeex rek am na si ñoo xam ne ni man ni may ñaanee ak keneen ku mel ni man ni ñuy ñaanee pour Sénégal am jaam pour dëkk ñëpp am jaam pour Sénégal di gagné saa su ne am na ñeneen ñoo xam ne yaa ngi dégg noonu la ñuy ñaanee pour Sénégal am defet amaana ñoom ñooñu di ñaan nag pour Sénégal am defet ñoom dañuy xëccoo pour jël affaire bi pour diriger ko ñoom dañoo bëgg a nekk entraîneur wala ñoo bëgg a yor équipe bi bu ñu leen fi bàyyee dem jël ku mel ni Aliou Cissé wala keneen nga gis ne kii jàmbaar la dem na ba final xam ne tey Sénégal gëj na dem final depuis de 2002 Mali góor góorgóorlu tey ba ñu jool équipe bi jox ko te bi muy dem 2002 tubaab moo ñu yoroon ñu dem ba tey jamono jii nii ñu jox ko Sénégalais muy góorgóorlu dem ba final kooku bu ñu ko ñaanaloon tuuti rek yaa ngi dégg jël na kii bi bu xol yëpp boolowoon rek coupe bi ñëw na waaw kulli waaw na ñëpp téyaat seen doom rek loolu laay wax. waaw na ñëpp téyewaat seen doom yi te wax dëgg yàlla mooy mooy li ma la wax rek lu sacrifice yi gars yi def yëpp si làmb la am wala mu am si football wala jamonoy élection ñëw waaw nawetaan bu jotee dañ téyaat xale yi parce que bu dee ñun ñii di liggéey ci wàllu asrar ñun mun nañ def sarax def sacrifice te duñ laal doomu aadama ndax doomu aadama yàllaa ko teral de gis nga nit moo gën a foor ci lépp lu yàlla bind c'est pas pour rien lu tax yàlla wax la ne bu eh, daganal la maanaam ay male yi nii maanaam lu jëm ci wàllu xar ci wàllu nag wàllu bëy wàllu ganaar boo soxlaa mën nga dem ci loolu noonu def li ngay def mën nga bañ am bàkkaar mais doomu aadama nga xam ne yàlla wax na ne laxat karam naa ba bani aadama wa xamal naa um fil bërri wal bahri wa radaxnaa min at-tayyibaati wa faddalnaa alal kasiirati min man xalaxnaa tafdiila yàlla lépp lu mu bind doomu aadama moo ko si gënal yaa ngi dégg mu tàggatal ko jéeri gi ak jéeri gi avion yi janaaw yi bidiw yi lépp looy gis doomu aadama moo ci gën ba ci yonent yi ngay gis nii sax ay doomu aadama lañ yaa ngi dégg kooku nag tey boo ko jëlee nga ne da nga koy sacrifice yàgg yàlla te booy day dem safara alaa kulli haal di wax ne nag comme am na si ñoo xam ne xamuñ lii nii ñoom àdduna rek moo leen jaral jël ay doomu aadama di leen sacrifice bu boobaa nañ téye seeni doom yaa ngi dégg téye suñu doom yi bu baax a baax te di leen aar nag te kër yi nag damay wax borom kër yëpp nañ aar seen kër am na si ñoo xam ne ñoom ñoo ngi koy def mais am na si ñoo xam ne dañoo bàyyi ndiku nañ aar seen kër te lépp lu ñuy def ñu xoolaat aar kër gi aar say njaboot ba nga xam ñàkk nga ñàkk sa kër ba nga xam ne nii golo bu jógee ci àll bi du man si sa njaboot dara def sa kër ay ñaan ma yor naa ñaan yoo xam ne si kër lañ koy def kër googu seytaane du fa dugg yàqkat du fa dugg rab du fa dugg jinne bu bon du dugg jinne yu bon nu mu amee noonu la jinne yu baax amee lépp luy lore du dugg sa njaboot du dugg sa kër bu ñëwee si buntu kër ga la yem xanaa say njaboot bu ñuy génn ñu xool lu ñuy fagaroo mais kër googu moom duñ fa dugg voilà ko li loolu dafa am sax parce que tey da ngay gis koo xam ne bu jëndee terrain balaa ma ko tabax day dem ñu defal ko ñaan si kër fekkee ne yow defal si ñaan nga fekk terrain bi nga jënd ay ay jinne ñoo fa dëkkoon nag wala ay rab ñu tabax ko dëkk dafa wàcce woo fa alxuraan jàngoo fa ay yaasin dafoo fa ay ñaan nga ñëw rek dëkk bu boobaa boo fa dëkkaale ak leneen nag lu mu yàgg-yàgg da nga jóge wala sa njaboot di dee ndànk ndànk loolu yëpp nañ ko fi loolu la rek ñaan mooy nga naay jullit te ñaan dafa am espèce dafa bari façon am na ñoo xam ne dañuy julli rek ñaan rabbana yow yàlla maa ngi la ñaan nangam nangam mais am na ñoo xam ne lan mooy seen liggéey lan mooy seen mbir mooy ñoom dañ see yàlla da leen see may lépp dañuy xool elmu nujoom yàlla daleen may xam-xam bidiw da leen may xam-xam parce que am na borom euh, xam yoo xam ne seen xam dafa gàtt ñoom dañ ne xaybu yàlla rek boo xam laa ya'lamu xaybu illallah kenn xamul xaybu ku dul yàlla mais yàlla am na ñu ko xamal xaybu am na ñu ko yàlla xamal xaybu mooy loo xam ne ñëwagut parce que borom ñi dégg arab jàng rek dañ yàlla dafa wax ne xaybu kenn xamu ko ku dul man yàlla maanaam lu ñëwagut kenn xamu ko ku man yàlla mais yàlla moomu noonu nga xam ne moo xam xaybu te kenn xamul xaybu ku dul yàlla yàlla moomu am na ñu mu ko xamal des nga dégg benn kilifa ne eh daf leen sarax nangam dina am wala at bii nii dina am nangam lu xew lu demee ni accident yi am na ñu ko waxoon ah, waaw buñ tëbee tëb ne la nangam dina xew yow nga ne non ñii dañuy wax rek nga dem ba mu yàgg nga gis ko waaw bu boobaa loolu mooy la parce que yàlla moo leen xamal xay bu lu ñëwut xamal ma la man toog naa fi ne leen Eumeu du yàgg ci roi bi am ñoo xam ne dañ may critiquer fii Pikine après loolu ñëw loolu du xaybu loolu xaybu la di sel mi toog fële ne leen Balla nii lay daanee nu mu tudd euh, Yékini si côté ndeyjoor xaw ma côté càmmoñ mu demee noonu loolu du xaybu loolu yëpp lu ñëwagul la yàlla lépp lu mu benn doomu aadama moo ci gën waaye doomu aadama boobu noonu nag bu selalee tuuti rek yàlla xamal ko loo xam ne ñëwagut te bu la xamalee lu ñëwagut nag bul bàkku bul gis sa bopp bul rëylu loo jàppal ne yàlla moo la ko xamal rek xam na nooy naagoo rek da koy rocciwaat ndànk alaa kulli haal léegi ci biir xayb boobu noonu nag nit mën na ñëw nga gisul ko dara lu ñëwagut lu mel ni président lu mel ni mairie maire bi lu mel ni benn jour lu mel ni benn mbër boo xoolee gis ne nangam mooy xew ci kanam nii lay demee bu boobaa ay sarax mën na ko dippi loolu moo waral sarax ñëw ay sarax mën na ko dippi bu ko defee sarax yi bu ñëwee rek kenn ni ko bëggee ñu xool nu muy demee loolu moo waral ñun ñi ñëw de alaa kulli ak ñi nga xam ne dañoo soxor ci biir kër yi bëgguñ kenn am jàmm bëgguñ kenn avancé su ko defee yow boo ñëwee su ñun dinañ la teg si yoon ba defal la ay ñaan lu lay musal ci say noonu alaa kulli haal loolu moo waral ñu ñëw mais bu taxutoon ak lii moom alaa kulli haal duñ def ay ñaan.